ñu dem ci retour de Maïga waxoon nañ leen ko kon nag retour de Maïga demoon na Nigéria amoon na fi coow ak jigéen ca biir sinema ba ba sangunu Bob Marley di dal kon nag léegi bii yoon Maïga dina def nañ leen déglu nag na muy wax taw ci tàngana ba kaas baa ngay dal bisimilahi rahmaani maa ma ne ka man Sénégal di nga waaru yaa ngi yore sa marchandise yi defuloo kenn dara wàkkuloo kenn dara yaa nga bugg a jaay sa marchandise yi ñëw nit yi la jël la foofu mu wax defal la ramage wala defal la santaas kooku normalul baaxul ndaxte nit ki amul dara nga xam ne yaa nga ko liggéey léegi su olofu saka def fa génne seti bu ma jógee Nigeria laafiya saraka daama wala sakka yakana su kafe simila ramage patron de nga ñaata kaas nga bëgg ah, man kay defaral ma foofu cinquante francs pe wala sax defal nag kilo bi ci jëmi boppam wàññi ci dix francs rek yóbbul cuukeel bi rek nga jox ma dama sawarul sax bu ma sawaroon dinaa lekk dëgg defaral ma ñaari kaas foofu léegi dinaa la ko defaral patron ma dodde café wala waaye dangay dooli sa café bi yow xam nga ko may ka bu ma jéema boolof waaye ci taawun bi laa dëkk comme ñëpp yow itam dangaa defe ne wàcc bees laa man ba ma jógee Ndofane yàgg de fekk na yaa nga jogandoo faani tam si nga déglu mooy ga nga xam ne man maa ko dakka defar yow café aywa jëlal mburu yaa ngi noonu tooy naka may ne si ay ca kamp ko nanka déet bu ma kay bu ci am rek may ga nga téye sa kaas yow danga ñëw indi bi yoon te mani su partenaire lawaka bu mu jógee nii sër yaa ñëw fii ba léegi client bu mu dee correct waa e eh, comment yigu yow ñëw na encore c'est ko lebi man ni sosi yi ko sànqare la waxa xamul caaxaane la waxa danga ma defaral danga moom soixante-quinze francs mburu yaa ngi defa soixante-quinze francs booru nga defa soixante bi yaa dugal ci diggante bi safe mayonnaise ak kii bu ñu seq chocolat dafa saf wa <laughs> danga waar de sara kulle moo bëgg lekk <laughs> bismillah duubale kaasi nga wax kaasi ngi sa mburu yaa noonu ay ci lekk ko asalaamaaleykum na nga def man de may ga man dafa am benn problème boo xam ne bi moo ma arrivé woon problème boobu yaa ngi ko bakk ci kaw bu la ko boole ko li client yaa ngi togg kii déggul wu dara góor la comme ñun rek yow jigéen la danga nga wakk sa soxla ma fajal la may ga du loolu man damaa dégg ne da nga ama Xadi ko wax affaire Xadi Njaay toppatool sa affaire ray moo ko wax nit da nga maanu maanu baax na ci doomu aadama da nga ko jaay suma tàngana su fekkee da nga lebu ma lebal la Pape May de yottam sutura noonu ni mu demee la rek waa kon xamu ni ñu def man nag soixante-quinze francs laa fi indi di may la soo mënee defaral kaas bi ba pare nag mburu mi dama koy la ñaata mburu yaa ngi soxla may gi defal naa ci nëbbal kaas bi kii badu la te xam naa buy dem koñ ba di ma wecc yaa ngi naa ni tànganaa ma defaral la kaas ba pare nga wax a nebbu ko yoo ko nebbu te ko yëngali laa wax tey la mi ngi nii tax kii dafa ko naa ne tàngana waaye mais ça a kooku jarul masque yow tamit ah non yokkal saa bi waaye sax waaye def ko kii. non si saa bi ça va. waaye yokkal waaye tam. waaw war nga dëgg kon nag mais gas mu nooy def kilo bi den cee jënd dix francs rek comme sama waa ji ma tam nga tooyal ba mu tooy xip ak may ne xaw ma ci dara léegi kay amatul na bu da coob tàng naa comme ñëpp defal ma kaas bi na fees dell de dolli meew mi dolli naa ba mu sab sab ɗaafiyatan nimaratima faagañi laagara ñel hea jafani sareya ñaw sénégali woti suma mecce dani suma doole yaagi dewara sangana mayga amana bora mana nese kafe a denga toyla mburu nga dagge senkane fana penga waka mulu appetino a gay den jen mayga ak mballa xam yu neex yooyu nañ leen ko déglu nag moom ndaw si fa muy mujjee en tout cas Mayga su fekkee ne affaire bi noonu la danga waaru en tout cas man a maa ngi boobu day dugg na hmm? day hmm? Hmm? kam nga soo ganaane suma tàngana nga kamu ne sabu ne sapput moom ka amul benn warante dafa ko sapp sapp laa waxa man dinaa dolli encore mburu danga waar te suma yarama dafa tàngulu sax su tàngoo dina ko copp demi si sa kanam nga xam ne saraxu laamu lu caaxaane ba ñu déglu may ga nag am na nag benn taasu boo xam ne bi may ga nee na a taasu kon nag leen ko déglu nan koy ay may ga neex ni muy jaay waaye lekk nga ni mu ne ma ne may ga demal a taasu laa waka kara katte kapp kattama ñaamaatunu ci nga wakkale ma ci laa waka kuru ku ndakkar ndakkar ndakkar kil patam ay diga dig dem gaa yi fay mu neex cëy yal na jàmm yàgg sama gaañ bi aw waaw yàgg bawul dara àddina xalaatu neen la muñal yow loo muñ mu jeex ñoor di ko dogul dikk na